Euh, ci fi nga xam ne moo di màkk loolu xewoon ci fukki fan ci weeru janvier ci atam six cent trente ci ñaar fukki fan ci weeru koor ci atam ñeen ci la ki nga xam ne moo di Seydina Ali ibn génnoon àddina gannaaw bi ko fekkee muy julli jam ko euh, mu gaañu gaañu gaañu métti waaye nag dund na ay fan door a génn àddina ci bés bii di ñaar fukki fan ci weeru ci ñaar fan ci koor ci atam cinquante cinq ci la Uqbata ibnu Naafi tabaxoon li nga xam ne moo di jàkkaay Xayrawaan ci Tunis loolu xewoon ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci septembre ci atam six cent soixante onze jàkkaay Xayrawaan bokk ci jàkk yi nga xam ne moo gën a mag ci monde islamique ci ñaar fukki fan ci weer koor ci atam mille deux cent soixante neuf ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin mille huit cent cinquante ci la ki nga xam ne moo di Abdul Qadir al Jazairi di jàmbaar fàkk tëdd bu Algérie boobu signé woon ak français yi nga xam ne ñoo ñëwoon coloniser Algérie euh, accord bu Maqta ngir taxawal xeex bi ak jox ñi nga xam ne ñoo di waa Algérie seen sañ-sañ ci seen réew euh, ci ñaar fukki fan ci weeru koor ci atam mille trois cent soixante neuf ci la parlement bu Israël joxoon ndogal ñi nga xam ne ñoo di juif yi ñu am sañ-sañ dugg fi nga xam ne moo di Israël loolu xewoon ci juróomi fan ci weeru juillet mille neuf cent cinquante ci ñaar fukki fan ci weeru koor ci atum mille quatre cent trente quatre ci la xew-xew bu metti boobu xewoon ci place bu ñu wax tariqu nasr ca madinatu nasr ci Caire gannaar bi nga xamee ne ñi àndoon ak Mursi dañoo ñëw rek baare yoon yi taxaw foofu nag samp seeni bergena di fa fanaan ay fan diñ fa jugee fekk tijjiwuñ ki nga xam ne moo di seen président Mohamed Mursi waaye nag soldaar yi ñëw dal seen kaw rey nañ ci ñu bëree bëree bëri gaañ ci ñu bëree bëree bëri loolu xewoon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet deux mille treize ci ñaar fukki fan ci weeru koor ci atam mille quatre cent trente cinq benn avion yi Malaisie bu daanu woon ci Croatie li ci dee bëri woon na lool war toll ci deux cent quatre-vingt-quinze loolu xewoon ci dix-sept juillet ci deux mille quatorze ñi nga xam ne ñoo gën àddina nag ci bés bi bokk na ci Muhammad ibnul Qasim as-Saqafi mi nga xam ne moo dugaloon l'islam ci Inde mu ngi gane woon adduna ci ñaari fa ñaar fukki fan ci weeru koor ci atam 62 tolloog benn fan ci weeru juillet ci atam 682 ba tey it euh, jàmbaari fàkk tëdd bu l'islam di Sayfuddin Qutuz mi nga xam ne moo gane woon waa Tatar moom mi ngi gane woon adduna ci ñaar fukki fan ci weeru koor ci atam 652 tolloog ñaari fan ci weeru novembre ci 1254 ba tey ñi gane adduna ci ñaar fan ci weeru koor bokk na ci ki nga xam ne moo di Shadia ñu nga xam ne moom lañ ko gën a miine waaye mu ngi tudd Fatima Kamal moom di joué kat film bu mag di woykat ca fa nga xam ne moo di Égypte euh, moom mi ngi gën a woon àddina ci ñaar fan ci weer koor ci atam mille trois cent quarante neuf loolu tolloo woon nag le huit deuxième mois mille neuf cent ci ñaar fukki fan ci weeru koor ci atam mille trois cent quatre-vingt-treize tolloo ko dix-sept octobre ci la cheikh alxaaji Mouhamed Zeynabu ibnu cheikh Tijani ibnu alxaaji Mouhamed Zeynabu ñu gën koo xam ci baalaaji di jàngkati alquran bu mag ci fi nga xam ne mooy jumaay Medina Baye euh, ci bés boobu ci la gane woon addina nga xam ne mën nañoo wax ne mu njëkk enregistré kaamil alquran ba mat sëkk ci ay kaset keroog nag bi mu paree xalifa gi euh, teral ko teraanga bu mag ci fi nga xam ne moo di gàmmu Tayba ci kanamu mbooloo mi yëpp moom Baye Alaaji moomu mi ngi gane woon addina ci ñaar fukki fan ci weeru koor yal yàlla may ko wér yokk fanam yaa rabbal alamin ñaar fukki ci weeru koor ci atam mille trois cent quarante neuf tollo bési altine juróom ñaar fan ci weeru février cent trente ci la ki nga xam ne moo di alxalifa Cheikh Ahmed Dame gane woon addina euh, kon ñi nga xam ne nag ñu génn addina ci bés bi nga xam ne mooy ñaar fukki fan ci weeru koor euh, bokk na ci euh, Abdoulaye Xays nga xam ne mooy Jean Omar Muxtaar ak Risala ñu ngi génnoon àdduna ci fukki fan ak ñett ci weeri mars mille neuf cent kon mbokk yi ñu ànd ak euh, Cheikh Al Khalifa Cheikh Ahmed Dame Niass moom mi ngi génn àdduna comme ni ñu ko waxee léegi bisi altine juróom-ñaari fan ci weeri février loolu ci mbind cheikh l'islam alhaaj ibrahima si lañ gisee date bi waaye date bi ci arab bi mu ngi tolloo nag ñaar fukki fan ci weeru koor ci atam mille trois cent quarante neuf loolu la bàyyi bind ci arab biñ ko convertir li ñuy jox ci français ci atu tubaab mooy juróom-ñaari fan ci weeru février mille neuf cent trente un mu génn addina bi si talaata fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru mai deux mille dix ca Maroc kon moom dund na euh, lu war a toll ci soixante dix huit ans ak ñetti weer ak fukki fan ak soixante dix neuf ans ak ñetti weer ak fukki fan ak benn soixante dix neuf ans ak ñetti weer ak fukki fan ak benn moom la dund bi muy jël xilaafa gi am na soixante dix ans euh, ak ñetti weer ak fukki fan ak juróom-ñaar loolu am bi muy jël xilaafa gi mu toog ci xilaafa gi nag euh, lu ko dalee vingt quatre mai ba deux mille un ba talaata dix-huit mai deux mille dix maanaam am na ci xilaafa a lu war a toll ci juróom-ñetti at ak fukki euh, weer ak benn ak euh, ñaar fukki fan ak juróom muy nag koo xam ne nag ku liggéey Mawlana Cheikhul Islam Alhaaji Ibrahima Ñas la Baay wax na ci moom wa fi tariqi ahmadu wa ahmadu najlaya tëmma fihi ma ma aqsudu damay tukki maa nag ànd ak suma ñaari doom ahmadu bu njëkk bi mooy Cheikh Ahmed Dam ahmadu ñaari bi di Cheikh Ahmed Tidiane mu nag laa yatamma fiihimaa maa aqsudu suma ñaari doom yooyu li ma bëggoon ci ñoom yëpp am naa ko te yàlla defal na ko ndax ñoom ñaan ñëpp nekk nañ xalifa baay kenn ki mooy ñetteelu xalifa mooy Cheikh Ahmed Dame kenn ki di ñeenteelu xalifa mooy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhuma moom Cheikh Ahmed Dame nag yàlla may na ko ñu ubbi jumaa yi ci euh, jamonoom ci ñaar fukki fan juróom benn ci weeru février deux mille dix gannaaw bi ñu ubbee jumaa ji ñaari weer rek la dund ak ñaar fukki fan ak ñett génn àddina fukki jumaa lañ ci julli julli ci jumaa ji gannaaw buñ ko inauguré mu génn àddina moom Mawlana Cheikh Ahmed Dame euh, kon ñu ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di euh, ñaan bi nga xam ne moo ci topp te mooy allahuma ij'al li fihi ila mardatika dalilan wala taj'al li shaytani fihi alayya sabilan waj'al jannata li manzilan ya qaadiya xawaija talibina mbokk yéen a ngi ànd nag seen mbokk Baye Thiam fii ci eh, waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ko jagleel eh, xew-xew waa record ñu leen ko doon jottali eh, seen mbokk Baye Thiam Bousseyna asalaamaaleykum wa rahmatullah